hydrogéologue nommé directeur général de l'ONAS en remplacement à monsieur le <laughs> docteur Cheikh ñi bëgg naa leen de. Ah, non si si. Euh, y a y a y a y a les kii de. et actuellement nii y a les mesures individuelles si vous voulez aussi on peut ramasser ça. comme ah exemple logique bi ma doon demee mm-hmm. yàqu na dafay dafa xaw yàqu. ah non non ñu ngi jot information très rapidement. Euh, donc voilà euh, si si conseil si conseil des des ministres euh, bu nga xamante ni moom moo am tey mercredi 31 juillet 2024 par rapport ak euh, nomination yi ni euh, ñu xam rek ni euh, ki nekk monsieur Modou Diagne contrôleur général de police moom nommé noon ko secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière en remplacement en remplacement de monsieur Mamadou Bokarli admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ki nga xamante ni moom moo nekk monsieur Ibrahima Dieng nekkoon euh, commissaire de police centre de comi commissaire de police principal matricule solde 606 834 C précédemment commissaire central de Tambacounda moom nommé noonu ko euh, mun nekk directeur de l'autonomisation des fichiers muy DAF la fameuse kii la fameuse DAF la donc euh, mu remplacé fa ki nga xamante ni moom moo nekk Fiacre Bruno Léopold Léopold Badiane nekkoon euh, commissaire de police divisionnaire admis à faire valoir ses euh, droits à une pension de retraite euh, ki nga xamante ni moom moo nekk de Gadiaga nekkoon commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle moom te nekkoon tamit en détachement à Interpol moom la nommé directeur des ressources humaines poste mu nekkoon poste vacant donc ki nga xamante ni moom moo nekk Mamadou Lamine ki nga xam moo nekk Mamadou Lamine Niang mm. nekkoon commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle moom euh, te nekkoon en détachement aussi à la CENTIF moom la nommé actuellement ni directeur de police judiciaire mu daal di fay remplacer ki nga xamante ni moo nekk Idrissa Cissé nekk euh, nekkoon commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle euh, ñu woo ko ci yeneen fonction mm. monsieur alsan ñaan nekkoon commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Euh, te nekkoon tamit directeur de la formation de la police nationale moom lan daal di nommé directeur de l'office central de répression de trafic illicite de stupéfiants moo nekk CENTIF mu daal di fay remplacer monsieur Ndiara Sène euh, monsieur Mamadou nekk commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle nekkoon directeur de la formation de policiers adjoints volontaires moom lan daal di nommé directeur du groupement mobile d'intervention muy GMI mu remplacer fa ki ni wooyee njaga Diop euh, mama madame Sanou Diouf nekkoon euh, commissaire de police divisionnaire matri euh, commissaire de police division commissaire de police divisionnaire nekkoon tamit en détachement à la MINUSMA moom lan daal di nommer directrice de la fondation de la police nationale mu daal di fay remplacer monsieur Alsane Niane kii di Mame Ndiara Sène nekkoon commissaire de police divisionnaire nekkoon tamit directeur de l'office de l'office central de répression du trafic illicite de moom lan daal di nommé directeur de la sécurité publique mu daal di fay remplacer eh, kii di monsieur Ibrahima Diop. monsieur Aboulay commissaire de police divisionnaire matricule de solde 606 495 K nekkoon commissaire en charge de du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise Diagne moom lañ daal di nommé police de Bel Air et des frontières mu nekkoon poste boo xam ne kenn nekk fa woon euh, kii nga xamante ni nag euh, moom moo nekk euh, madame Mariam Diawo nekkoon commissaire de police divisionnaire matricule de solde 623 005 B nekkoon tamit chef de division des titres de voyage à la direction de police des étrangers des titres de voyage moom lan daal di nommer directrice de police des étrangers des titres de voyage mu remplacer fa ki nga xamante ni moom moo nekk Djibril Camara Euh, tey itam ci euh, côté ministère yi euh, ministère de l'hydraulique et de l'assainissement kii di monsieur Seyni Seyni Diène moom moo nekk ingénieur hydrologue hydrogéologue moom lan daal di nommé directeur de l'office national de l'assainissement Baye Bass daal daa yeewu daal yor baleem mm-hmm. waa mais bi paa moom police bi la gën a police bi la baleem mais man benn remarque très rapide loolu mën naa ko wax ci bi ma gisee léegi-léegi communiqué bi laa ko gis ma gis ni euh, commissaire Ndiare Sène moo yoroon octrice euh, barki dem rek maa ngi wax si moom ci émission fii sans limite digg penc si ma naan leen euh, jàmbaar la boo xamante ni liggéey bi mu liggéey sax ci wàllu drogue. tey bu ma yëgee nii li mu am nii. ñu def ko DSP mooy directeur de la sécurité publique. donc mu nekk ndoom tànk bu am solo. ça veut dire que président Diomaye xam na li muy def parce que Ndiare moi je l'ai bi muy nekk commissaire police de Pikine. mais Ndiare véritablement bi mu nekkee police Pikine hmm. ñàkk caaxaan gi nekk ci moom mais aussi ak euh, liggéey bi ni mu ko doon defee. Hmm. parce que surtout jamono bi nga xam ne moom da doon ñëw Pikine euh, dafa nekkoon euh, zone boo xam ne si dañoo amoon ay zones yu criminogènes et Ndiare a fait un excellent travail ci police Pikine bi mu jógee police Pikine ci lañ ko nommé woon après moom lañ fi nommé woon commissaire central bu police mais si vous vous ci ci jamono boobu la ko Macky Sall jëlee foofu yóbbu ko actrice parce que tout simplement euh, bi ñoom Guy Marius Sagna demee palais tout ça mais c'est quelqu'un boo xamante ni euh, liggéeykat la et que euh, ni président Diomaye jëlee Ndiare jox ko DSP ça veut dire que xam na véritablement sur quel homme il doit compter parce que mm-hmm. Ndiare il a l'expérience et puis man mën naa def ci moom témoignage boobu parce que quand il a été à Pikine il a marqué les esprits et moom fépp fu mu jaar def na fa liggéey bu am solo fan yëpp yéen ngi doon dégg drogue bi ñuy jàpp drogue bi ñuy jàpp parce que Ndiare moo nekkoon à la tête de l'actrice liggéeykat la koo xamante ni nit ku jub la nit ku am fulla la aussi ci ci wàllu liggéeyam bale bi nag xam naa ni Diomaye moo yor bale nay bale rek. Mm, c'est ça euh, très bien merci beaucoup Maty pour les euh, infos naka noonu euh, waxtu wi xoj nañu ñu daal di yëkkati jotaay bi sëriñ c'était un plaisir mbégte bu mag a mag lañ amoon c'est que yow jotaay. bu vendredi incha allah il faut ñu ah, waxtaanee ko rek fii la ëppee waaw. <laughs> yow dañ laa frigo. moom naa di dëgg <laughs> mais su yi 19h30 lañ wax. non ma def congélateur. da la congélateur bi. Mm. yàlla jeexul de. <laughs> yàlla baax na quoi. mais yow am na yoo xam ne jàpp la sax am na kër yoo xam ne jàpp la de. man dugguma ci <laughs> merci mais mais nag foofu sama kër la et puis euh, j'ai j'ai ma famille toujours foofu. et puis am naa ci ay relations yoo xam ni su may su may su frère lañ su may su may lañ et mm. puis euh, sans sans ni haine parce mm. euh, nit ku nekk fi nga nekk ay at. Euh, am na lu la fa marqué am nga loo fa jàng am nga loo fa xam. Mm. Mm. peut-être sénégalais yi ñu bëri peut-être dinañ wax mais mm. euh, foofu c'est ma famille donc euh, voilà. pour man lu lu lu rafet la loo gis rek am na fu mu yam et puis di di di ku nekk am nga sa parcours maintenant pour man le plus important nous on a un défi à relever ñëwuñu teg émission pour ŋàññi kenn ñëwuñu teg émission pour Euh, concurrencer kenn mais dañu jàpp ni war nañ mën a teg émission boo xam ne euh, dinañ ko am un rendez-vous avec les Sénégalais et puis tey première émission la Euh, ñun sax d'ailleurs émission bi démb si guddi. Mm-hmm. la ñu bukkunte woon nañu dee il faut ngeen ñëw rek ñu ñu tàmbali ko. mais de mm-hmm. plus en plus ñuy dem. Mm-hmm. Euh, dinañ ko gën a ñoŋal gën ko defar gën ko améliorer lépp rek ngeen xam ni que euh, véritablement surtout président xale la ñu am. plateau bi ay xale fi nekk. te xale yi ñooy doxal. asalaamaaleykum. voilà merci beaucoup Salma yow it c'était un plaisir ànd ak yow ci jotaay. bu leen fàtte Salma daf ma def déclaration d'amour en direct. <laughs> tout cas pertinent te mhm. gis naa ko ci yow gis naa ko aussi ci.

gisante wuñu woon yàlla moo dogal loolu. ci mm-hmm. ay ni da ngeen di mel ni ñoo xamante lu yàgg. donte doo leen gisante yaayam sama xarit la yaayam moom c'est ma maman. Mm-hmm. et je l'adore cette euh, cette mère di ko ñaanal mu yàgg fi lool di la jaajëfal yow aussi di jaajëfal naan tey yi nga xamante ne ñoo ñu doon suivre comme ni ko Cheikh Oumar waxee c'est la première fois wala première euh, kii bi la tey. Mm-hmm. premier numéro bi la donc euh, oh, bon démb la ñu buukunto woo rek nañu tey ngeen di. commencé ñu ne ko ci teg naan ah, amul ah. solo donc di jéggalu rek. ci boo xam bu dee wax nañ loo xamante ni dëng nañu ñun moom man sama genre gi xam nga mm-hmm. Euh, nit lañ yoo xam ne bëgguñu injustice. Mm-hmm. xëy na loolu moo ñuy yëngal nit lañ yoo xam ne bu ñu gisee nii que dañuy jàpp alalu réew mi di ko cax bu ñuy wax xol la ñuy waxee. Mm-hmm. loolu moo ñuy animé mais c' juste pour defar rek ñu gën a ñëwal li nga xam ne moo ci alalu askan mi dina jox rendez vous xëy vendredi. vendredi incha allah incha allah. pour moi hein, parce que bu <laughs> lu muy xutba fii laa ko invité direct. non baal ba beneen rek wuy ma bàyyi waaw waaw waaw mais bàyyi bàyyi ñu def <laughs> eh, imprégnation bi quoi comme comme on dit ñu ñu ñu gën a familiariser wu avec euh, la chose pour gën a mën fournir ah, euh, de la de la de la qualité euh, <laughs> à nos internautes am nga libre sans engagement bàyyi sa yooyu. <laughs> ah baax na gën a jongama laaj ah, ah, <laughs> ah, <laughs> engagement. waaye itam hmm. donc euh, voilà maa ngi remercier bu baax a baax sans limite euh, euh, par rapport ak opportunité bi ma may parce que c'est pas évident ndax quoi qu'on puisse dire bokk na si médium yi nga xam ne jamono ji ñoo teg tànk ñoo yore bës bi dañ leen kay nangul donc maa ngi leen di remercier bu baax ci intégration considération bi ma def euh, ci équipe kër nandite yi. Mm-hmm. waaw kër nandite yi. <laughs> voilà actuellement nii aussi sama yaay bi nga xam ne ñu doon suivre en direct sur Sanly bi ndax moom YouTube moo koy wétali. Mm-hmm. maa ngi koy faire un grand coucou. di ko souhaiter aussi un prompt rétablissement di ñaan yàlla mu gaaw wér. di eh, ñëwaat fii nii sama euh, yaay sama yaay namm naa ko waaw Mor Talla aussi. sama jaay daa rafle woon rapport de. barki yàlla waaw moom rek moo sañoon wax. waaw voilà voilà donc donc. waaw nit nit dof Euh, show of the year bi. et li ma li ma li ma neex ci moom. bi mu ko mm. remarqué mm. parce que bi muy ñëw di dugg ci ci mouvement hip hop. dafa jóge bitim réew. ñu imposer style am ne ragal du jéggi raay. donc euh, voilà xam nga Louga beeg yooyu. mais nee naa ko show of the year bii di ñëw. Mm. maamam dañuy fitiri. ma rab ko lu neex. <laughs> Ah. donc euh, ah. maa ngi maa ngi remercier bu baax a baax aussi ñi nga xamante ni ils ont pris vraiment leur temps yor jëlaale seen.